li ndeyu mbi gi mooy fi ñu jóge dafa sori ñaari fukki at ci kanam euh, ku xamoon li nekkoon ci dëkk bi ci wàllu yar ganaar danga naan xeebu na lool lool yàlla nag def na bi amee ba mu am benn jàngoro bu ñuy tuddee grippe aviaire ñëw ci dëkk bi nguur gi foofu la takkee ndiggam ni nu lii mënul fi am dañ leen jàppale ba aar askan bi ci la muy lekk mu nekk lu wér ba tax dara dootu fi dugg ba bu ñu ci gis lu leer yàlla nag def na booboog léegi liggéey bi dafa jëm kanam lool lool lool bu ñu xoolee tey ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci activité bi xayma nañ ko daal ni mat na juróom fukki junni nit alal bu nee nag dugal nañ ko ci am na ñu naan sax toll na ci quatre cent cinquante milliards kon nag ñëpp gëm nañ loolu du lu neen waaye léeg-léeg dafa am li ñuy wax euh, jafe-jafe yoo xam ni day ñëw lalu ci mbir mi bi ko jëkkee mooy 2019 fekk nañ fi Covid boobu amul kenn ku umpule luñ ci jat dajul li gënoon na metti sax mooy ñi nga xam ne ñu ngi woon ci tool yi te ñu tere woon leen ñu génn pexe pexe bu ne def nañ ko pour mun a dundal askan bi donte nag nguur gi jàppoon na ci loolu parce que doon na ñu may li ñuy wax ay laissez-passer pour ñu mën a mën a dugg génn pour mën def liggéey bi waaye nag yombul woon. 2021 guerre bi ñëw loolu moom ba léegi mi ñu ngi ciy daj loolu lu mu indi mooy lépp loo xam ni doon na dugg ci liggéey bi. yokk na yokk bu jéggi dayoo bi ci jiite gën ci takku mooy aliment bi producteurs yi amul luñ ci dajul parce que yokk bi doonul woon benn yoon doonul woon ñaar yoon doonul woon ñetti yoon te li ci gënoon a metti mooy yokk yooyu yëpp dafa àndul ak yokk njëgu ganaar mu metti lool ci ñoom tuuj yokk parce que ñi nga xam ne ñooy liggéey ci loolu itam dafa am lu bari lu ñuy jéegaane ci liggéey bi mu yokk loolu ñu teg ci garab yi nga xam ni ñooy tax liggéey bi mën a dox loolu itam metti ci ñoom loolu ba tax ci diir boobu gis nañu ñu bari bari bari génn ci liggéey bi ndaxte loolu yépp mayu leen woon ñu mën a continuer xam nga kon bu fekkee loolu am na nguur gi itam di ci dugal pexe di seet lu mu ci mën a def ba mu bañ a metti donte metti bi moom amoon na bu pare waaye li ñuy wax dëfal rekk moo fi nekkoon mu am ay liggéey yu takku takku takku yoo xam ni def nañ ko ngir mën a indiwaat nit ñi ñu gën a sopp lañuy def loolu nag bu amee ay saay-saay ñëw ci dëkk bi ñoom seeni pexe nekk lu dul lu ñuy dugal seen poos seetuñu ndax lañuy def baax na seetuñu ndax day lor askan bi xamuñu ndax day néewal doolewu ñi nga xam ni dugal nañ ci seen loxo seetuñu ci li ci état bi def la nga xam ni daal moo leen intéressé mooy na poos bi diis loolu nag mooy li indi jataay bi tey te loolu jàpp naa ni ñun ñëpp ñoo ko bokk amu ci kenn fii koo xam ne war na ko néewal wax jooju mooy indi que ñu jàpp ni benn dañuy ñaan nguur gi ci boppam mu gën a takku donte am na lu mu ci def mais jàpp nañu ci waxtu bii yolomal nañu mbir mi loolu parce que suñu gisee ganaar yi nekk ci marché yi yenn yi ñu naan duggee na biir géej ñii ñu gis ni mu ngi dugg ci biir ay camion di ñëw te amul dara dara dara loo xam ni gis nañ ñu lu ko néewal dañuy jàpp ni nguur gi am na lu mu bàyyi moo tax ñu koy ñaan mu dolli pas-pasam ba loolu mun a dagg parce que bu daggul li ci am mooy benn mooy askan bi ci boppam la muy dugal ci biiram ñun xamuñu ko yéen xam ngeen ni yu demee noonu buy ñëw lu bari bari bari bari du sell du sell ndax benn fa muy jóge ñun xamuñu liggéey bañ ca liggéey donc war nañu njort ni buy génn foofu di ñëw fii rek c'est que ñooñu bëgguñu ko ñaareel ba la koy indi ak yoon ba muy jaar ak ñi muy yàgge lool kenn xamul ndax buy yegg si sax donte bu ma fay jógee selloon na ndax bu muy dugg si fi baax na ñetteel ba mooy ñuy liggéey fii seen biir ci biir askan bi ci fii ci biir réew mi waruñu nangu loo xam ni wóoru leen ni ndax sell na ñu koy dugal ci biir dëkk bi parce que yàqu-yàqu bi dafay law ba nga xam ni fa muy yegg dañu ñu umb